ko xanaa jigéen ñi la mu waxoon ne déet ki waxoon ne baal ñu ne mu déet ay jigéen kii la kii la ci xunna yi la kay ci xunna yi la kay ah moom ci ñoom la de ko ci xunna yi la kay
kubal kaay bi léeg léeg nag dimbali ma léegi kër yi kër mooy moom mu ngi def wuy ma ay mu naf si lañ lañ jàng kubal kër bi li li li wax nekkul foofu nekkul ci kër yi maanaam mbëkk mi li wax mbëkk mi def ci gaal yi ilmu nafs li muy jëriñ mooy jàngat suñ problème yi yi yi ci suñ biir te néexut a xam ki bëgg a dem ca basak barsak nee na la wax lu tax moom léegi lan moo ko war a jaral lan moo ko war a jaral barsak lu lu lan moo ko war a jaral lan alxukuma ala shay farxun min sawri maanaam bala ngaa àtt dara da ko war a xam kooku bëgg ta dee daa am yëg-yëg boo xam ne ci pour moom yëg-yëg ba dee la ci moom ku ñu wax Mouhamad Farid ci Égypte ab ab ab kii la woon ab iqtisaadi la woon bu mag daa waxoon ne laa xayaata ma maal yësi wala yësa maal xayaat ana taw taw taw suura bi bi dégg nga ko usaab ni usaab ni ko laa xayaata maal yësi wala yësa maal xayaat ñàkk espoir espoir fi doolu réew mi nit ñi dañ lay maa laa xayaata maal yësi wala yësa maal xayaat maanaam léegi ñàkk espoir espoir waaye nag maa laa laa xayaata maal yësi
maa ya ci
waaw wala yësa آية
waaw wala yësa ma
maanaam jamono yi dañoo tollu Sénégal nit ñi dañoo ñàkk espoir amuñu yaakaar amal al yësu biddu bi moom mooy amal amal am yaakaar boo ko defee moom mën a dund dund ndax dund moom yësu dafay rey gone yi ñoom dañoo amul amul yaakaar suñu politiciens yi ñoo yàq réew mi yàq bu kon boo xam ne ne ñëpp a jàpp ne politiciens yi mu kenn mënu leen fay jële sëriñ si ànd ak politiciens yi xaaloo leer kat ni abwaa bi salaat yi ñi tax tuwaati ko nit ku la max yi ñi sëriñ si maanaam léegi ñooy baaxalal politiciens yi lépp politicien bi ku bon la ku bon a bon la sëriñ bi ne ko yow sa- sama dooma sama rakk nga sama nangam ñaanal ko politicien bi moom léegi jeex na moom yow yow yow faqir bi yow mënuñ dara yow mënoo koo daane yow kon léegi gone yi leen di tax a dem mooy yëës na yëës nag moom waa ji da da koy yëg waaye sax du ko wax koo gis mu koo gis mu xaru yëës la am na lu ñuy tuddee ak tamrit tamrit mooy sage-femme yi sage-femme ak tamrit tamrit xam ngeen lu ko andi tamrit dañ ne am na wéradi goo xam ne waa ji wéradiwul marit bi wéradiwul nafsiyeen la daal goo xam ne dafa toog adduna jëpp naqar na ci moom xamul nu muy def léegi nag léegi xel xaar yo ëpp na ci moom ba mucc for wéradil ko wéradiwul bu doon da- dafa soxla woon am million bu mu jëndee ab sareet tumbaam nga jox ko ko mu wér wér di wute xel mi wér di sama sama benn waay nee na xuma kubaana fii xuma sa kii ba commissaire bi nit ñëw na fi moom ne ko jàpp ma tëj ma mu ne ko lu- lu- luy loolu mu ne ko soo ma tëjee dépasse wàcc ma ñetti fan të- tëj ma ñetti fan nit ku ñëw ci police ne ko tëj ma ñetti fan lu tax ndax dépasse wàcc ma sëñ bi sëñ bi kooku kooku kooku yësi la yësi sëñ bi may ma tourné juróom bi rek moom li may wax ma ëpp solo maanaam maanaam am na benn waay bu bit may wax bi di ko fay daam ab borom saret ñu ne ñu ne daa wéré bi mu wéré ne ma ne moom du dem hôpital waaw ndax hôpital la li nga xëy si mu amul day toog day toog day toog waaw sëñ bi kooku am na yaasu de liggéey na ba wéré di xam na ne mën dafa jóg waaw ana sëñ si ana sëñ si mi ngi mi yàlla ñu ana moom xanaa ñoom gëmuñu gëmuñu xanaa yàlla ana ana sëñ si bii wala si ne yekk ni sunu dahaba wal fidda ñiy rënk alal su ëllëgee jaani ñanguur yoo xam ne dafa danga jël daa bari ba xosu ba ba xosu moom lañ koy takkal ak cax bu koy mat aw ëllëg si si xanaa xanaa ñu jëm ñu loolu loolu loolu lu ko naan sëriñ si ñoom yor seen i milliards ànd ak état bi état bi ànd ak ñoom luy tee ba gone yi duñu am duñu am yéesu ni kon yow sa baay bi nga bëggoon laqatu sa baay léegi sa maam kon kay foofu nga sa xam nga ku ku daawoon jëm ci ak garab gay na di di ko di ko dàq mu daw jëm ci ne muy séen ko ab jëngu léegi fa la jëngu gay na gi mooy état ñangoor bi mooy sëñ bi kon léegi fu nekk jëm maanaam léegi nag yéen bu ñàkkee sa bu bu bu ñàkkee nag amal. muslim mu'min moom dafa am xal li tax li tax gëm yàlla am njëriñ gëm yàlla bokk na ci ay njëriñam mooy soo amee ësma nafsi bu luy rëy bu yàlla teewee fi yow ësma ba def nu mu demee yàlla dala bind nee na taalamuuna kama yaalamuuna waaye nag ba tarjuuna minallaahi maa laa yarjuun yéefar bi bi bi mën a xaru ngir am problème yow bokk leen ndax da ngaa yaakaar loolu neexul ana ajjana am na ala am naa ajjana joo xam ne boo boo boo boo fa duggee fàtte sa problème yi muñal muñal ana ana Sëñ Tuubaa sept ans ci àll ba sonn lool ana mu jeex na di muñal lu metti metti muñal day jeex bu bu bu jeexee ma ñëw la kër goo xam ne duutu rab moom lépp ko mu'min bi wa tarjuuna mina llaahi maa laa yarjuun moom dañoo xam espoir ci ginnaaw dund tubaab moom bii xaru dafa amul espoir gën a dund par moom dund fi la lépp yem ñun jur ñu ñun dañoo am espoir ñun ñu am nañu amal ku nekk amal ñun amuñu yësu ñun amuñu yësu ñun bu waxtu wu nekk am jurit dafa war a jàppee ne kan yow sama jëmm ji moom moom moom ma roogi sama baram bi suñu ma ko dagg dee dafa xaram bu ma fayal milliard sama des boo ko jaay de dafa xaram benn cër si yaram bi mu ma ko yàlla ko moom mu ma ko de inna laa ashtari min al muminina anfusahum wa amwalahum mu moo ci dara waaye loolu fay ba ba gënoo ko tere sëñ bi sëñ bi kon am nañ am nañ am nañ amal bi am nañ espoir am nañ ko kon yow lu metti metti yow jullit bi xam ne la moom moo sa bopp gaal gi si ñëw ci dugg wala tulqu bi aydikum ila tahluka yàlla nee na mayu ma ne nag sama jëmm ji ma defar ba mu jekk def ci agro nga de nga de ko yàq sëñ bi na nit ñëw sa kër fekk sa néeg mu tëj ko boo boo ñëwee ku tëj nga ne xanaa jiw jiw ñëw tëj ko doo mel yàlla tabaxu jëmm ba mu jekk jëmm ji jëmm ji moo gën a jekk ab ñoo gën a jekk lépp gën koo sophistiqué yàlla defar lépp nag nga ñëw yow dugal dugal ci yow ci gaal bi daal di dee mu jeex ay gën a tala jeex déedéet sala sala ma nee na ku rey sa bopp jumtukaay ba ba ba nga ko reyee jumtukaay boobee moom moom lañ lay mbugale sawara ah ah gaal gi ku ci dugg xam nga ne gaal gi mënut a dem Espagne ci mu xel boo ci duggee bu këppoo da nga xaru ah xaru de sëriñ bu la man di wax leneen lu mu wax mu dëgg mu dëgg de. alxuraan moom bu xasee wax moom kenn mënut a waxal leneen wala tulxu bi ay diir bu ma gën tax lu ba intihaar li ko tax a rëy intihaar xaru mooy da ngaa mab ba kër jàmbur yàlla te loxoom njëkk nga mab yaay kan yow yaay kan yow yaay kan ban doole nga am ba mën a mab kër kër kër kër yàlla yi yàlla ku mab këram dangu te teew ma ne waa ji dugg ci mbëkk bi daa sonn dañ ko naa koy ëmmoo dara teg ci nangam waaw ma ne moom wut na baaxee sawar na la su fanaanee sawara dana fàtte maanaam lu mu yéene woon a am ci ci ci ci bas génn guddi génn guddi benn lax sa bu nit dugg sawara benn lax sa bu nit dugg sawara dana ko fàttali woon dana ko fàttali xéwalam yëpp problème boo am dugg sawara ko gën a rek problème bu nit am ba da bëgg a xaru dugg sawara ko gën a rek de si bu sawara sëñ bi xoolal fii ni ko def def ab fuur dugal ñu fi rek ñu ne kat léegi fuur bi kat dañu ñu fi dugal kat ñaata ñu ne xanaa une minute une minute laa def une minute seetlu ko une minute yéen coono bañ fay laaj mënuñ sugoo wax moom amaa nag nag sa war a fala fala ñoo ngi nekk maadaama ni sama watu wal ar loolu loolu loolu ñaata milliards at la sa biir na métti képp suba ba ngoon sa adduna jëpp bëgg a tukki te biir doo nga la loxo bi métti de biir bi doo koy métti ah lé léegi gi yow sawara nag moom sa lépp métti sa lépp lépp métti de sawara ku dugg alxuraan wax na ko da da dañ leen di jëng ay jëng fuur ba yow monsieur jëng leen ay jëng solo leen mbaxana yi weñ weñ mbaxana mi ñu mas ko courant mooy togg jëmm ji yàlla tum naa wax ji yàlla ko yàlla bu doon teel da ngaa tum naa wax ji loolu xam nga loolu doomu adama ni mu koy defee yàlla dugal ko ci ëpp fuur jégg ko sol ko mbubb mu weñ baxanaa mu weñ mas ko courant muy togg jëmm ji togg waaw xam nga su koy su koy togga amul dee di amul dee ay bool la ñuy def di di ko dégg léegi génn ñu seen biir ba moom la ñuy lekkaat dañuy xiif a xiif mara mar ba duñ duñ ko mën a bañ a lekk te duñ ko mën a bañ a naan ah seen bi ñoom ñoom monsieur buntu ba nee na xale yu muusa la dañ koy bopp ràpp ba ngelaw du dugg duggee seen bi yàlla yàlla ma tax mu ñëw yàlla nag du sa bàyyi du sa maam du tëri yàlla du nit de seen bi bu yaakaar ne yàlla dafa am yërmande ji ñu wax médecin buy opéré bi yëpp. am na yërmande waaye yë yërmandeem ci bu ñu yërmande mais ja moom yërmandeem mooy moom da koo bëgg sooy moom daa bëgg lor ji ji jigéen bi yàlla bu lay mugal da lay ras da ras di da ras de te ba daa am bakkaar boo xam ne ruu gi balaa set borom sonn kon gars yi laa xayaata maa li yëg si képp koo xam ne amoo espoir da ngay alko fa dund da ngay meeseya da ngay dund dund ko naqari wala ñu sama xayat képp kuy meeseer moom dund dund dootoo di dootoo yow sa xol bi da day day dee di li ngay yëg ci aw métit nit ñi mënuñu ko xam waaye nag wa tarjuuna minallaahi maa laa yarjuuna moo lay may amal yow kat gëm nga ne alaaxira am na gëm nga ne borom bi subhanahu wa taala moo ko moom gëm nga ne ab ab jullit nga gëm nga ne boo faatoo nga am ajjana ajjana jooju ne la doy sëkk coono boo mën di am boo duggee ajjana fàtte waaye ci coono boo mën di am boo duggee sawara xam ne coono boobu amutoon maa ngi leen di yee maa maa ngi leen di woo ci loolu lenn lu jar bokkaale yàlla amut ah sëñ bi boo may dara baax maanaam lenn lu lu lu lu jar bokkaale amut lenn lenn lu lu jar rey nit amut lenn lu jar xaru amut amut moom amut ndax ku ma def coonaay nii bi boo xam ne. lépp loo doon ragal ci ak coono da nga am bugóo maa ngi maa ngi maa ngi leen di yëgay ma man maa ngi leen di yee sëñ bi ana yelwaan bi bi yàlla ko def nag yàlla waa ji dama dama ñàkk mu ne ah ñoo ko kon ma sàcc bi mu dee sàcc man doo yelwaane sëñ bi yelwaan amul sax dee sala sala man ñun ñoo fi moom ne ko dama ñàkk dama ñàkk waaw yoruma dara waaw sëñ ñu la da da dama nekk dana nekk ci ci waxtaan yii de moom man du kii xam ne dana dana baax waaw. mu ne ko loo am mu ne ko mu ne ko xanaa xam nga de dañuy am ab sër am lu ñu gàccoo mu ne ko xanaa dara lay lu ko andi mu jël ko daal daal koy jox saxaaba yi ne nee nañ ko jaay jaay andi mu ne ko ne jënd ci simiñ ngeen simiñ mu ne mu ne ko mu ne ko del dem taxani di ma ko dóoral fii jël taxan di dóor dóor ba pare lool mu ne saxaaba yi na na na na nañ ma ko jaay jaay ko mu nga xaaj bari mu ne waa ji am waaye sama tama jógee mooy sama tama waa ji nekkut daa ko mun pexe fi toll nga nga si li nga ko taxawoon alhamdu bi dikka waaye waaye gisoo ko gisoo ko di yi ëssi day tax ba doo gis waaye am nga pexe benn benn étudiant Oustaz Balla Meng benn professeur am ci sira ne ko yéen Sénégal yéen seen suuf si ni mu tàllee baax loolu autant yéen du du leen ci liggéey ensuite bi lu tax yow suuf si suuf suuf si yaatu si Italie dem dem naa fa ñu romb kër goo xam ak kër fan ak kii bi xool kër gi defee nii soit bi daa def nii
fii fii fii la def këram lii lépp di ab tool
man loolu damaa yéem espace bi yàq la mu ne mu ne ko ab tool su dee sapon xam nga sapon yi moom lii dafa terrasse bi ci kaw da ngay def ab tool tool espace bi biir yi soo defee ab tool man nga fay toog mu nekk ab sardin ba noppi muy li ngay dund ci kër gi fay meññ sinuwaay yii di tabaxu ma ci yor projet tubaab bi si si fañ ne fa la ñuy bayee lépp ko ñoom li li ñuy lekk du jënd dara waaw ana ngeen yéen yéen du ngeen jéem a dem foofu sax gëstu ba xam ñii nu nu ñuy defee lii waaye da ngay solo ba jekk toog bi rek ñu xoolee maanaam léegi yow rek ci yow doo kenn yow boo defee ba léegi nga da ngay dem ci ci ci ci bëkk ma doo jéem a trouver solution alxal bi di jéemale wut portable bi ngay yor gone yi ma ne portable bi nga yor ñaata la quinze mille wala wala cinquante mille mënut a am benn projet bu ndaw boo ci def yow looy looy looy dee portable yow ku la soxla kenn soxla wu la yaa ngi jënd crédit yor pro pro portable seer léegi yàq la doo ko doo ko jaay jëndee ko wut ci ab projet bu ndaw vacance jot na doo dem jàngi benn métier mu ndaw nu ñuy nu ñuy parabole yi nu ñuy defee nangam nu ñuy defaree téléphone nga nga mën cee liggéey. loolu nag lañ ci am ko si ñoom ba nga xam ne sa bàyyi lu mu jënd café suukar nangam doo ko def da ngay tëdd rek yow alxallu bi di ka yaa ko jub wér nga dara dalu la am nga doole mën ngaa jóg dox kilomètre dikk te doo wér kon am nga doole ah kilomètre nga dox ko dikkaat di wér di woo am nga doole ko di yow ah sa xel mi ngi fi xam nga foo jaar ci yoon xam nga foo jaar. woto bi ñëwee da da da da koy mën kon am am nga am nga xel yooyu seen bi yow amoo kon loo man man nga dara kat sa xel mi nga da ngaa gisut li li nga man Sénégal boobu bokk na ci seen problème di di di xool waa ju dem ca mbëkk ma indi oto bu rafet waaye fàtte nga ne moom bu dee woon dem sa war fàtte nga ko de te te kat des na de waaye ju yor oto oto rafet ba am na bakkaaru xaro waaye ji ji ji dëpp seen naan ko déewut am na ba am na bakkaar xaru bis bañ ci nekk lay fay sëñ bi nañ gis war xel yi ah nañ dikkaat yàlla mënu moom de ab jurit moomul boppam ba su ko neexee mu rey ku rey sa bopp alko sala sama ko de sala sala ma nee na ci ci hadis képp ku rey boppam mbirum xam na yi- yërmande yàlla ji li muy yaatu yaatu ku rey sa bopp nee na sa mbir xatu de ku la maanaam xa- xa- xamisu ku rey sa bopp ku rey nit sa mbir xat ah gars yi gars yi fi mu toll ñi ñi ñi day sa mbëkk ba mu doon yàlla ni ñoom maanaam kii xoolal daaw magal ko Porokhane jiweesu yaa naa jiile leer ay gars yu jóge fii su suba teel yor oto gone yu ndaw daw xelu métti ñaari gone ci génn kër pat waa kër nga jóge Porokhane ñëw de maa ñu ñëw ñaari fan ñaari fan a des ci Porokhane ñu ñu war tey gars yi indi leen an- indi leen Touba rob leen saraxal leen ci bis bi daal di daal di màggal ma ne ma ne ma ruy na kër gi ñu dëkk laa de ñaari nit ñi kër gi ñu dëkk bi ñu faatoo Porokhane bi ñu faatoo coono mu indi leen daal leen di suul def lépp ci dëkk bi daal ñuy demaat parce que mu jeex parce que leen amuñu jot nit ñi amuñu amuñu temps ku dee yaay dee amuñu temps de mbëkk bi ku ku ñu faatoo gaa yi saraxa la noppi nañ ci am alko da ngay alko ci foofa alko yaa xam sëriñ bu taxaw di fen day fen nag lu mu wax lu mu wax day fen xamut ci dara xamut te mënu ca seer moom mënu mënu dara la mënu de moom dara la mënu mënu dara dañu bi yàlla mi la bind mooy la toj ko ah gars yi ndax leer na ah dara daal lu lu jar dem sawara mu amut njaaloo njaaloo lu mu neex neex sawara bu ci duggee xam ne njaaloo ñëwut rey nit lu mu la jaral jaral boo reyee nit boo demee sawara xam ne xam ne loolu dara jëru ko ku rey sa bopp coono boobu amoon ba rey sa bopp boo demee sawara xam ne dara jëru ko kon siku bi day njaaloo rey nit rey sa bopp xam nga bakkaar bi ku rey sa bopp ba ba nga rey nit xam nga bakkaar bi lu bu yama man xasala nafsan bi xëy na nafsin fa kaana maa xasala sa jamian aadama ba ila nafsi fi suur rey leen bakkaar ba- bakkaar boobu boobu boobu boobu nga yam te xool de rey ab yonent rey sa baay rey sa sëriñ rey wali yi bakkaar bépp nga yam man xatala nafsan bi xayri nafsin amul amul yilla faqad ma xatala naas jamian naas lore naas jamian nga rey leen yow yow kenn kii bakkaar boobu moom moom nga am wa man ahyaaha nag moom it naka noonu la ku dundal bakkaar yoolu ku dundal ñëpp nga yàlla kooku alxaalis bi alxaal la de du waxi du waxi diw de kooku waxi yàlla la waxi yàlla nag sama bay dafa naan nit ñi dañoo war bu bu bu ne yàlla de nga xam ne yàlla wax yàlla moo wax du du du doog nit de sëb sëriñ waxut yént bi waxut yàlla mi bind yént bi bind sëb sëriñ moo wax ah gars yi leer na di gars yi yi yi si bi nga ñëw li may deeseere mooy nga am yaakaar ba tar juróom yële mara yi jënd nga gëm yàlla ne kat yàlla moom kat moom adduna lu métti métti wutal la ma kër goo xam ne boo fa duggee fàtte ci coono ah Afrique yi foo xool ni ni méttee tàngoor weeg nangam beeg ñaawaay beeg pàq geeg pënd bi lépp ñaaw soo demee Europe ba ñëw naan fii xam mënu mënu fi dëkk waaye day rafetlu dëkk bi te de boo jógee Égypte ñëw aéroport fépp ñaaw ñaaw ñaaw ma ko tiit ma tiit ma tiit ma Égypte jar jar ma jar Europe ma la tiit la def ma dikkee ma ma li ma naan moo ko tiit nga xam garab yi ma dund ma dem Madina ci kaw ma ne fa ay weer dikk na gaaw na gaaw rafet ma nga xaar gën a ñëwoon xool gis gis nga de te aqaloom bi ma miinee lu rafet Ndakaaru dafa ñaaw mais du gatee ci lu ñaaw Ndakaaru la pexe amut Sénégal la am yàlla suuf si Sénégal gii la mu may oh soo demoon tey naar yi wala nga dem Europe di dox police bu seen yaakaar ne yow lay waxal nga ne Sénégal yow di dox yow nànk yow da ngaa dëkk ci réew mi yow fii nga am fii la la yàlla may waaye sëñ bi sëñ bi nañ nañ ko jéem a baaxal nañ jéem a bay nañ jéem a taaba taaba nañ jéem a def lu nekk nagam waaye moom bu ñu dara jaral joxe bakkan bi bakkan moom kenn benn yoon dong lay dagan mooy ci jihaad fi sabilillah i'laa an li kalimatillahi ta'ala allati hiya al-'ulya booba dong lay dagan wala boog ku la bëgg a jël sa bakkan boobu te amoo meneen pexe ci fang loola lu may dangaa jël bakkan su boobaa dagan waaye nag lu xat la amoo menn pexe mooy aaroo lu may jël bakkan yàlla nag mi ngi lay gis xam na ne ba xam yow li nga wax dëgg la am dëgg defal ci aadama ra doom ja ba ko ba ko ba ko mbokk ma di rey mu ne ko la it masa masa tey dëkk li li taqatul nii maanaam bas ñe de li taqatulaka ndax loolu lu ci ma bëgg damaa bëgg sama bakkaar bi nga ngay jël ko fi mu toll nii bu bu la benn waaye doon rey ba ko mu rey la moo gën a wóor bu la reyee moom sa bakkaar bépp lay si bëgg bu ci moom te boo ko reyee mën naa am rey ba tëggul ci ci yoon ndax mën naa am aw yéen a woon fee boo ko dul ci tànk bi mu dam du la mën dara te defoo ko jël ab jël ab ab fetal dóor ko ci bopp nit te dóor ko ci tànk yi ko def ah xam nga yow fetal la boo tax mu munoo dàkk tànk bi dóor ko mu léegi dóor mën dara waaye nga dàkk bopp nga wax nga ne dama bëggoon na rek yàlla gis na ko de loolu loolu loolu daa ngi laaj kon daal lii jaay nekk nekk ko mokkal laa xayaata mu xarama la Mouhamad daan përi ak ak isu si ab économie su bu mag la waaw moo ko waral banque am na lu ñu tuddee banque misra moo ko créé woon waaw booba engrais bi ne booba yor lépp waaye boo su fekkee ba créé ab banque moom moom la ndaanaan la ndaanaan la ndaanaan la moom day tukki man amul yéene xam nga
ah ah li yées daal mooy ñett yaakaar ak amal si safaan bi mu yeesu ñett yaakaar
fekk na ma waaw oustaz ki dugg ci mbëkk mi dafa ñàkk yaakaar ne mënatu am
comme ça ki nga xam dafa xaru xam nga bi bi mu dugg si gaa yi pour dem bi mu dugg si gaa yi pour dem amul woon yéene xaru daa amul yéene egg léegi kon su faatoo ko daa xaru léegi
alxuraan dane wala tulqu bi aydikum ila tahlika ab looco boo xam ne xam nga ne mënut a daw junni kilomètre nga dugg ci ne mën naa mën naa am yàlla ne inna sanna laa yughni min al-haqqi shay'a jottu jottu mënut a wut dëgg waxal leen loolu waxal leen yàlla moom la moo la loolu am nga xel bu dugg ci daal dugg ci tëdd ci tëli ba oto aw ci sa kaw taxu taxuta dee am naa ci am naa ci firnde keer jël naa taxi wàcc taximaan bi mere ma maanaam léegi maanaam bëgg ma fiir sama siis bi la la la siis bi mooy siis yi nekk ci kii bi foro bi aw na ci ba ma dégg xoddet gi xool sax defu ko kooku yàlla la waaye am na koo xam ne bu doon moom dee na kooku yàlla lu lu ne mën naa am waaye yàlla dara la yow ginnaaw mënoo dara defal li nga mën walla oto taxi aw ci kuréel bi aw ci ba foddet foddet ji fo- foddet xam nga foddet def na ko sama sama tànk ma ne nii yëkkati dara méttiwul maraay dara xusul kooku yàlla la waaye nag yàlla du ko defal ñëpp rek wala xarxul xaa rek wala bu ñu ko kon ne ne nekk xaa def kon maanaam léegi mbëkk mi ku dugg ca gaal yu ñàkk solo yooyu ku ci dugg dem da ngaa xaru kat xaru nag muskilaam mooy xamee sut lu su ko ñaanal xamee sut lu su ko ña- ñaanal eh jégal ko ku ko xaru da dañ koy bàyyi yàlla
bu ñu ko ñaaw mu jégal ko loolu du jëkki Macky Sall boo toog boo boo ànd ak sa waay ba def ci Macky Sall day mu toog toog waaye jël pes doomi Macky Sall day na ma jigal ko ah boo ko waxee da da ngay ñàkk digg ah sañoo ko
ah mais jullit la ah comme moom jullit la moom ah ki nga xam ne daa xaru def loolu noonu jullit la
li li lislaam xaru bu muy jullit yëfar yëfar du xaru ah kon nga ko yëfar bu ñu waxee xaru rek jullit bi daal waaw kon jeex na bu ñu ne bu ñu ne bu ñu ne ku xaru yëfar bokku ca yàlla ki mu considéré mooy jullit leer na ah xaaral xaaral xaaral ah oh. atte ku ko xaru ngay am yow do- doonte ne faatu woo am nga at am nga am nga am nga bakkaar waaw déglu leen ba xam soxna soxna si fulla leen de fulla waaw ne ko jaxande waaw avant ak oto ak avion yi di am.
waaw bu daan tukki jaar si suuf si.
ah ay dañ daan ndox xool ay gërëm di ko.
waaw bu dee ndox la yaa si gars yi di jaar waaw léegi bu ñu daan jaar jaar loolu xaw a wër bi.
maanaam gaal la goo xam ne am xel moo ko liggéey avion nga avion ni mu diisee nga di di naaw ci jaww ji xel moo calcul ba xam ne mën naa naaw ci ci kaw jaww ji gaal ji rek moom xel moo ne mun mun mënta naaw mënta dox ci ci ci ndox mi bàgg xel ko war yi bët du yenu nga xam ne xam ne lu ko attan jeex na xel xel ma attelé mu attelé waaw fekk na ñoom gars yi génn comme ça moom ñu war a def.
ah comme gars yi.
Hmm.
dañu nangu ñu kii moo tax ñu
ah moo tax ñu ñu ñu.
déedéet déedéet loo ca mënta mënta dem Espagne.
ah daa fekk seen gaal.
yow xam nga loolu bato yi mooy mooy mooy tukki bato mooy tukki daal fii la yem ci tabaski
ah mais bu dee gars yi tax tukki moom ku ci dee doo kon xaru woo bu fekkee bateau dox.
loolu la loolu maanaam léegi ki dugg ci loo xam ne mën na caa dee dee ah mën na caa dee wala turxu bi ay diikum ah jëttalu ko bul yób bul joo sa bopp ci alkane du ko bato dugg sa sa sa kaar loolu moom dara ah comme comme comme bateau la Jolaay yi ñoo ñooñu moom xaruñu ñu déedéet parce que waaw
mi ngi mel na ci daal bato bu baax a baax mën a dara xew waa ji ne nii mu mbëkk ko dara bi ba bato la joolaa ñoom réussir bopp
waaw day dugg ñoom di fay seen xaalis war a dem Dakar am na am na lu ba ba tabalu xew ba ba mu ngi léegi di yow boo duggee avion mu daal ah xale wuute avion calcul nañ ko ba xam ne avion bi mën naa naaw waaye nag dañoo am njumte loolu la ku doon lekk fot faatu doo te am njaayeen la waaye nag du du du waaye du xaru ah gaaw dafa bëgg lekk rek ba gaaw a dina xanaa ceeb balaa jeex ma lekk ko waaye du xaru waaw du xaru de du xaru ah
waaw xam-xam yu neex
waaw wax naa léegi mu dina xam kooku wax naa ko wax naa Cheikh Fall wax naa Cheikh Lo wax naa Cheikh Ndiaye nañ dugg ci galaas yi wala ñu def fii ab waxtaan boo si sëñ sëñ Abdourahmane mu présider waxtaan wa bu noppee jël kat noonu suñu responsabilité noonu nañ ko dégager ok
noonu ñi nga xam ne noonu ji nga lañ jàng noonu lañ xam ci diir nañ nañ ko wax nit ñi am na ko ñu taxawal fee ñu lay la ñuy gudd nangam nangam ma ne leen ma ma ne leen yow yéen xamu leen dara yéen yéen xamu leen di fu am ngeen bëgg yéen amul bëgg ma ne ko xool ko yow xamoo dara yow xamoo dara di maa maa nga raw fuuf xanaa xamoo dara yow waaw léegi nag loolu kon toogoon ab débat ñu waxtaan ko dañuy poser question ñu tontu leen loolu ci la c'est-à-dire dëgg ndax xale bi mën naa am ñàkk xam gi ñàkk xam gi moo moo koy jiw yow mi ko war a xamal na yow am nga ci musul yi am musul yi noonu am na ci musul yi noonu maanaam noonu ñi nga xam ne noonu ñoo ci jàngkat yi noonu am nañ am seen seen bayit sëñ Abdourahmane war naa ñëw fii toog fekkee waxtaan wi bu nekkee mu jël jël ci ci kàddu joxe wu ndigal en tant que sëriñ joxe ndigal ndigal ah maa ngi doon ndigal képp taalibe yi loolu moom sëñ Tuubaa nanguwu ko wax ngeen li mu xam moom ginnaaw ba nag ku def ah sëñ Abdourahmane wàcc na wàcc na leer na kon donc macha allah
kooku tam baax na ma ma ma ma wéet.
waaw yaa ko moom. nii nga moom ñaar la woon de. ah nii nii.
ma man moom du ma leen ñaanal ma maanaam tey soo yóbboon sa xarit ca Macky Sall président Macky Sall toog doomam toog sa xarit bi baa doolam ba pes doomi Macky Sall bu ñu ko dee pamte pamte yóbbu da nga ci wax dara yow bu dee nit gi laa de boo ci waxee dara da dañ lay bëri moom yóbbu leer na
kon waaw. waaye waaw kon comme ça kon dinañ ko jullee ah ma ne. ko kon léegi ñoom lu tax ñu comme ça ñu koy jullee di ko waajal dem toog ñaanal.
maanaam noonu noonu mun doxuñu doxuñu noonu ci biir mun li li ñuy dox mooy aada diine dafa am diine ku dul julli kenn du ko jullee kii ku ju- ku dul julli bu fàttali jullee la mun doxuñu diine aada la aada la ko ko- kon kon fekkee ki xaru moom aw yoon may ñu jullee ko.
li tax li li li tax du duñ ko jullee dañoo bëgg a tiim lu nit ñi lislaam ji boppam moo ne bul jullee kii mbiram lënt na ba ko borom ah xam nga fasalu ahli dikri am na waaw.
yàlla bu amee 18 ans da nga war a dem laaj xam nga xel na yow xamoo xamoo marché ba da ko laaj ba ba- ba dem fa maanaam daa war maanaam nit nit daa war a laaj lu mu xamut nit nit war a dugg ci lu mu xamut nit nit laa nit woo woo waxoon nit nit rek lu tax laajoo sëñ bi daanaka loolu lu mu wax man ko laajul man ko xamul laajul koo xam xaw moo leer. xamoo laajoo léegi taxawaay ñu la man ah man man ne woon na laaj na laaj su su ma xam nga si bi islam nag bokkut ak man lay wax mooy islam xëy na xëy na mën naa wax ne moom kii nangam waaw mu koy mu nga àjjana mën naa moo xam man man àjjana man man man man moomu ko man mu àjjana de soo seen ñëpp dugg ba waaye man moomu ko nag comme neex nag nga nga dikk ko ba ko la neex ku ku ne la woon bu subaa nga doon ba président lan ko gëm yoon loolu suñu taxaw xool dana tax a jàpp ne da nga dugg tey tey ci pare bu suba naa ci am yaakaar de.
yaakaar fan. daa loolu loolu xel wut daa xel xel wut dafa am ay normes dafa am xel daa am lu mu xam norme la norme sëñ bi ka man loola ka man loola ñëw na ka man loola Cheikh Moustapha guerre ba metti tànn kan cinq mu ne mu ne su su- su ma kii rek ma soppi ci bi guy yi xaalis mag ñi xamuñu lu muy wax ñu xëy xëy toit bi déclaré ne dañoo bëgg ci bi guy gars yi ci bi guy yëpp dem jaay leen ko xaalis bu bari toit bi dañ ci ko xel xamuñu ko def ñu génn ko lakk kooku kooku borom doy la borom suñ suñ la ah sañ sañ la kooku sañ sañ la si mu saxee nee na sañ sañ balaa am sañ ji am da ngay dee wett ba noppi soo soo soo saa bu fëgg bu bu buntu yàlla bi bu bu yàlla mag la suñ bi gone gone dafa bëgg doom des bi waaw ñoo xam ne dafa dafa leer dafa dafa leer.
naaj loolu lu sigle lu sigle lu sigle sëñ bi ku ne la nangam ajjana mën nga koo am te doo sonn si si si si ne woon na mag ñi def loola neex am loola neex fu fu ko way digg na ko wuti amul ci Ahmadou Mbacké amul fu ne so so soxla mu kenn de fu ko way digg na ko wuti loolu suñu yàlla def wala toogul ay jiw mu wóor yàlla moo moo moo ko gën ku ku jiw sa bopp ci alkane boo faatoo dem soxla loolu mooy atte bi yàlla nag su ko neexee day fekk mosoo jiw muy muy muy bu ko sawar fekk man min di ma ca baax bu ñu ko jël kooku moo ko neex waaye lusik bi mooy su ma bëggee dem sama kër li yenu maanaam mooy ma jël oto waaye du du du ma dox wala suñu bi saam jaxate gi ma dëkk moom dama na ko dox àgg fa léegi loolu lu si ko lu si rek yàlla ko jël ah wala suñu bi yàlla nag moom man mën na ko moom mën na maa wax ay baat rek yàlla solo ma ko ma wax ko daal di àgg loolu yàlla waaye yàlla li jox jox na ma lu paas bu boo mën a jël rek si léegi dem loolu kon mooy lu si mooy ma génn fii jël rek si dem sëñ bi loolu leer na de ah alaxira wuti wut de kuy ku dof dof lu ba ba dem àllaaxira war a dugg sa war bii mën a kooku àggu na loo doon bañ da nga gis lu ko raw ah gars yi ñoo ko mbiri leen xam na leen xam leen xam naa leer na ne moom waaw macha allah waay Oustaz